ok vidéo kat yi laay jéem a teg gars yi bàyyi xel ci kat yi wala ma deret baa ngi dag gisoo ñoom ñaari ñi nii fii jabaru jàmmoor xoolal nga topp di fóon seetaan leen ma ñëw jabaru jàmmoor ci lay xewlu nii de jabaru jàmmoor la topp nii di xewlu jabaru jàmmoor Olivier xol ko te xat buy ñëw fii di kat ci ndaw si fekk na moom bàyyi na jëkkëru ndaw si ca këram mi ngi ko maa ngi duggi wala maa ngi dem football wala dama am entraînement fekk ma ngay kat ci ji di kat rek xoolal la nekk di nii kër jàmmoor mi kat rek bàyyi na déggoo ba ma bàyyi na ki nga xam ne moom mooy jëkkëru ndaw si ca këram moom naan ko maa ngi duggee maa ngi football fekk ñëw na kër ndaw si xam na ne xulloo na muy kat gis nga bàyyi na ko ca kër ga moom jëkkër ji moom ñëw fii di kat gisoo lii kër ndaw si la di kat xoolal di ñaaw na ndaw saa ngi nii ndaw saa ngi nii démb lan ko rey jëkkër jee ko rey xoolal Olivia moom mi wax ji wax ji neex neex ah mi ngi toog ñu koy defaral boppam mi ngi toog ñu koy defaral boppam Olivia de mi ngi toog ñu koy defaral boppam gars yi direct baa ngi dagg maa ngi ñëw commencé waat mi ngi dagg. Ah, billaay mère bi de problème da si saraxu sama doom laa yaakaar moon wax jooju day daw sama yaram. mooy def na tout waa ji def jëf ju ñaaw ji ba kii di rey jabaram non gars lu ñaaw a kayit jaral na leen lii katt jabaru jàmmoor kayit moodu moodu yi kayit jaral na leen katt jabaru jàmmoor ma répété ñiy doog a ñëw te xamuñu kaa nu mu demee aadama kundul dafa marié ak faamam ba mu marié jouru mariage bi xaritam bu tudd Olivier boo xam ne Dakar lan xamante woon ñëw ci mariage bi def ci kër gi une semaine ñibbiwul une semaine après mariage bi deux mois aadama kundul daa di ak jabaram ki nga xam ne mooy Olivier daat koy ne mu génn aadama kuddul mer génn këram jàpp ne ne kooku xarit la mu dem fanaan ji sa moom léegi nag ndaw si rek moo des ci kër gi ndeke Olivier doomu raam la chaque jour da nga daan tàggu naan ko maa ngi nduggi maa ngi dem entraînement maa ngi dem fee ndeke day katt ji ndaw si saa yu ko tàggoo rek jàppal ne dem na ci appartement ba katt ji saa yu ko tàggoo rek dem na ci appartement bi katt ji bu ni kattante nag wala ñuy def lu ñaaw dañuy filmante ku góor ki mooy mooy filmer wala ku jigéen ki bu di kattante ñoom ñaar kii nay filmer wala kereen ki filmer léegi nag ba nu juboowaatee aadama kuddul ak jabaram démb ci guddi la aadama toog gel bi di neraw mu jël téléphone am xool gis si waayu xaritam bi nga xam ne nii ba mu ko daan tàggu nekk da daan katt jabaram vidéo ci kii bi mu gis vidéo yi vidéo yi ñaaw mu am lu ko métti ci la demee jël paaka daal di jamate ndaw si ba mu seddu guy rey ko ba mu ko reyee foto ko yónnee ko seexam yónnee ko ki génn léegi nekk Sénégal ba pare dem police bu Rouen bu France daan ne man maa rey moom Adama Koundoul mais bu ma doon Adama Koundoul Olivier lay xool rey dayam bàyyi gel bi moom jàpp nan ko moo yóbbu boppam kaso dafa ñaaw ma won leen photo yi ko reyee maa leen koy wan nii nii la ko def rey mu ñaaw non bii leerul photo bii leerul xaaral rey bu ñaaw la ko rey may ma woon leen ko ma woon leen ko rey bu ñaaw noo non non Modou Modou yi baaxuñu barki Serigne Babacar si Modou Modou bañ xoolal paaka la ko jam paaka daat koy photo lii bëgguma ko sax wane lépp dafa sensible quoi Instagram mën na laa bolek paaka la ko jam paaka paaka la ko jam ay paaka la ko jam ay paaka ba mu dee da ko jam paaka ba mu dee mu photo ko yónnee ko seexam yónnee ko xaritam bu nekk Sénégal ba pare dem police ruwaat ne ko man maa rey aka gore gay da koo jam paaka ba mu dee lëf jar na lii lëf jar na nga jaay sa ngor gars yi saa yu tàggoowee aadama kuddul ne ko day génn dem fubali wala day dem dugg ji nekk ma ngay katt jabaru jàmmoor xool leen fii vidéo yi xool leen jabaru jàmmoor na nekkal koo xam ne takk na ko ci lislaam nga topp jabaru jàmmoor di katt ba lii xew ci koo xam ne ni yaayam ak papaam moom la yaakaar famille yaakaar ko ñaaw na sénégalais yi ni ngeen nekkee Europe katt na tuuru ndeyam ñaaw ni ngeen nekkee Europe ñaaw na ñaaw na ba ci kanamu yàlla xoolal jabaru jàmmoor nga topp di kat lii jabaru jàmmoor nga topp di def lii jabaru jàmmoor lii jabaru jàmmoor xoolal xoolal jabaru jàmmoor mu lay defaral sa bopp jabaru jàmmoor mu lay defaral sa bopp nga bàyyi ki nga xam ne nii moom mooy victime bi sa kër na ko da ngay dem entraînement wala boog da ngay duggi di katt jabaru jàmmoor mu lay defaral sa bopp xam nga ne kii du sa jabar yaa ngi njaaloo yaa ngi def lu ñaaw takk na ko ci jàkk ñu def mariage bu rey kër bay fal lan defee mariage bi ndaw si wax na leen ko jabaru jàmmoor nga topp nii di kat jabaru jàmmoor ngay kat sa nday xamee leen Olivia kanamam ku kat ndayam gi Casamance nga laal de dana dëgg sa nday bu baax waa Casamance génn leen ngeen toj tuunu ndayam kii suba nga xamoon damay daxaar ku kat sa day la jabaru jàmmoor bu topp di kat xoolal di fóonante jabaru jàmmoor jabaru jàmmoor ba tey jabaru jàmmoor xoolal jabar jaa ngi nii jabar ji nag yàlla na ko yàlla xaaree àjjana parce que jëkkëram moo ko jamal boppam mu dee démbul ci guddi jëkkëram ba mu gisee vidéo yi la ko daal di jam ak paaka mu dee wan naa leen ko foto yi léegi jam na ko mu dee mu dem police daal ne man maa rey sama jabar démb la ko yóbbu police moo fi yóbbu boppam dafa ñaaw dafa ñaaw gars yi xool leen lii Cheikh Wouta xool lii xool leen Olivia li muy def lii Sénégal lii moo jara partage xoolal te moom da koy vidéo de vidéo yi nag la jëkkër ji gis waaw vidéo yi vidéo yi la jëkkër ji gis ci téléphone ndaw si ak ni mu koy kattee ak ni koy maralee lëf li di dugal koy bi di ko katt naa leen wan yooyu yëpp dinaa ko teg lépp amul na bu lépp dinaa leen ko tegal looloo ko metti mu démb ci guddi la jam paaka jabar ji ba pare foto ko foto ko yónnee ko seexam jëlaat foto bi yónnee ko ku nekk senegal lii ñaaw na Modou Modou lu leen ko jaral lu leen jaral katt jabaru jàmbur lan moo leen jaral katt jabaru jàmbur Modou Modou yi c'est honte jabaru jàppoor lan moo leen jalal kattu ko lan lan ñàkk kayit ndax dégg naa kii amul kayit aadama kuddul sax a ko ndax aadama bu mariage woon ak jël am mais kii amul kayit aadama amul kayit mu kat jabaru jàmmoor la bëggoon a katt ko ndax kayit di génn ak moom tubaab da leen a jafe kayit xaalis xaalis ak kayit moo jaral moodu moodu yi nii katt jabaru jàmmoor dafa dafa ñaaw dafa ñaaw dafa ñaaw xoolal xooleen xoolal kat na ba kontaan aj loxo yi kat na ba kontaan aj loxo yi xoolal lii lépp jabaru jàmbur la koy defanteel te mi ngi bàyyi jëkkër ji ca kër ga naan ko damay dem entraînement ak damay dugg ji lii lépp jabaru jàmbur la koy defanteel xoolal mi kat katt jabaru jàmbur jabaru jàmbur lay kat ci biir kër gi xoolal sansé de seen sansé xolal xolal xoolal xoolal xoolal songo kii mooy kat ndeyam Olivier yaa dëgg sa ndey dëgg-dëgg yaa toj sa cottu ndey xoolal xoolal xoolal xoolal mais gars yi benn affaire laa leen di dolli tubaab moo mel nii tubaab koy bu ñuul la bëgg bu la gisee ku la dàqakat da lay bàyyi ya xam nga jigéen ñi dañuy traduire sénégalais yi pour xaalis tubaab day traduire pour koy bokkul de tubaab bu gisee ku la dàqakat day dem xoolal xoolal jabaru jàmboor lay fóot non yàq na booy bi kat na ko yàgg na katt na ko katt na ko yàgg na yow yaa dëgg sa day Olivier tubaab tubaab du trahir ci xaalis ci koy lay trahir bu fekkee da ngaa nekk nit ku ñuul mu xool sa koy xam ne sa koy baax na boo mun ta kat da lay bàyyi dem wut ku mën a kat tubaabu mel nii koy yu rëy lay traduire nit Sénégal intérêt tubaab koy lii dafa ñaaw c'est xutta jabaru jàmboor nga tiim ko di kat kat na ko yàgg na xoolal fii mi ngi téye si yow ba mu kate ba pare di naan ba mu kattee ba pare la mu téye si yow di naan gisoo si bi lay wane noonu après katt yi la yàgg na koo katt de saa yu muy kattee dañ koy vidéo ba mu kattee ba pare lay naan si noonu jël jël taawum naan si lii lépp ci katt yi la xoolal fii dafa simmeeku di waajal katt gi léegi fii la koy mare ne lëf ni fii data bi la koy maral ba tey lëf li la koy maral bii koy bi lay dugal koy bi mi ngi kat xoolal gis ngeen ko gis ngeen ko gis ngeen ko koo yaa ngi noonu di dugg dafa ñaw dafa ñaw torop gis ngeen koy gis ngeen ko nii koo yaa ngi dugg gis ngeen ko du ma ko wax koo yaa ngi nii di dugg fii lay fii lay lekkee lëf li ñaaw na ci jabaru jàmmoor jabaru jàmmoor nga tiim di lekk lëf li nii dafa ñaaw jabaru jaamoor gis ngeen ko gis ngeen ko baax duma leen ko wax daa dese dëggay jëkkër jee ko rey lëf lëfa leen ko jaral lëf lëfa leen jaral lii lëf lëf moo taal Sénégal lëf mi ngi yàq Paris lëf mi ngi yàq fépp data rek problème bu nit am data dada rek lii dafa ñaaw gars yi lii ñaaw na de delloo leen seen xal ci yàlla kat jabaru jàmmoor ñaaw na kat jabaru jàmmoor ñaaw na léegi nag gaay bu kaa bu jàllee dama bëgg jël benn gars seex Cheikh Produit parce que damay dégg ñu bari ñu naan nii la ñuy yokkee taat nii la ñuy amee ween nii la ñuy yokkee taat te man musuma gis nan la ñuy yokkee taat te man jigéen ñi lan la ñuy yokku seen yi man man gaaw daanu yi xaw ma ci dara yokku taat gi xaw ma ci dara produit yi xaw ma ci dara léegi seex laa bëgg a jël mu expliqué ma nan la ñuy yokkee taat ak yokku bi lan la ci gars yi jublu ak ween yeeg luy dëgëral koo yeeg kat bi comme que affaire de kat la Cheikh laa bëgg a jël aussi mais affaire bi dafa doy waar quoi naa jël Cheikh muy mu wax ma affaire bi ni muy demee noonu yokk koy beeg yooyu. ah man damaa xamul yokk koy bi ak taar yi ni muy demee man dama koy dégg rek. waaw booy. saa waaw. naka la. maa ngi ziar yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm kay. yaa ngi am tawfeex. sant yàlla bu baax. aco waxal sa xalaat. waaw affaire bi en fait euh, vraiment ñaaw na trop xam nga ku waxul ñaawul rek ñaaw na trop. dara jël ko fi quoi. xam nga man dara laay kontaan mooy waa ji war ko mën a mën a bañ a rey waa ji quoi jabar ji. Ah, nga dëgg de. parce que jigéen xam nga jigéen la aussi quoi man su doon xeex man su ma doon xeex ak gaañ bu gaañ bu doon seeg jaww ji moom laay dem quoi moom laay kooku laay seeti xeex ak moom quoi comprendre waaw xam nga jigéen moom mooy lool seen xel yi seen xel yi tollut fenn fi quoi. met na ah. trop nag nga jaar si gaal gi. gaañ mën mënoon na woon dese dese gaal gi xam nga. ok Cheikh bu dee yaa ngi fi nga dugg bokk waaw. bàyyi ma woo ko ci beneen téléphone bi. wala waaw ne ko gaaw nag quoi parce que man aw ma temps. waaw ko rek parce que comme waxoon ngeen ba yaa ngi dégg donc. ñaaw na trop trop trop trop mais xam nga rek aussi comme dafa décédé xam nga nañ nañ nañ nañ kii quoi nañ respect soxna si quoi soxna si dee si nga. ah image image sax jarul nga koy publier quoi parce que comme jigéen comme ñëpp a jot suba. suba Kocc bu gisee message tey dina ko dugal tey su ko gisul dina ko dugal. non non non dina dugal gàtt gi mar data bi vidéo bi daa gudd c'est que su ma ko tegee. Instagram damay bloqué mais coach dina ko dugal parce que li tax coach di ko dugal mooy dama koy wax ne ko mu dugal ko vidéo Eva bi te mu dëkk Kaolack dindi na ko nee naa leen bu gisee sama message da koy dindi moom sama waay la léegi nag yii laa koy wax dugal ko suba ma hmm. envoyé ku lépp ne ko dugalal ndayam na ko ñëpp xamee ci seen polo gaañu amul suturaal gaañu jël ok ti am naa contentement léegi may ma ma eggaleeg Cheikh bi mu am lu ma wan